Macky Sall quand même vous avez suivi un peu le le, le sommet des des des, des BRICS. vous avez suivi les sorties de Macky Sall à l'extérieur il est chanté plébiscité partout aujourd'hui du étonné kenn Macky Sall bu génnee di jouer les grands rôles à à à à l'international auprès des chefs d'État du G20 et du G8 donc li mu defagum euh, doyul da d'après yow. am na lu lu lu sooxe. c'est-à-dire que il faut il faut que présidentielle bii nga xam ne ñu ngi def benn def na un acte j'avais dit absolu de sublimation renonçant au troisième mandat des na deuxième acte bi. mooy lan. deuxième acte bi mooy mu def preuve disons euh, de de pardon. mu pardonné mu pardonné mu pardonné na am yërmande pardonné. libérer détenu politique libérer Ousmane Sonko waxtaan indi waxtaan indi indi ñëpp. mais mais mais ban façon waxtaan nga bëgg moom il a appelé il a appelé à un dialogue. Il y en a qui sont partis a une opposition qui s'est braquée qui n'est pas partie qui a refusé de de de de, de dialoguer. xam nga dialogue bu fekkee ne da man man dem naa ci dialogue bi. mais d'ailleurs et d'ailleurs dem nga ci dialogue bi mais pourquoi damoo jëloo sa bâton de pèlerin nga dem wax ak opposition bi leen ñëw leen waxtaan. wax naa leen ko. ah bien sûr. Ah. wax naa opposition bi dem leen dialogue yi que man su ma demee kay war naa leen yoon bi mais nag il faut créer les conditions de possibilité d'un dialogue sincère. le dialogue n'était pas sincère. non c'est-à-dire que je veux dire que am na ñoo xam ne dañ leen jàpp traumatiser leen teg seen gars yi machin xuloo bi metti kii bi metti violence bi am yooyu yëpp ça a joué et puis égo yi ça a joué en réalité moom la ñuy joué ba léegi parce que. moi je ne vois pas une polarisation entre Macky qui part et et et et Ousmane Sonko ça n'a pas de sens <laughs> Macky il part. mais ça allait trop loin entre eux. mais maintenant voilà il faut que. entre eux l'un dans kenn moo war a survivre. déglu ma expliquer la. on en là aujourd'hui c'est-à-dire que c'est c'est là où ça ça marche pas. politiquement on est là un état n'a pas d'état d'âme. su fekkee ne danga nga bugg indi paix indi indi indi tu n'as pas d'état d'âme c'est-à-dire que quelqu'un comme Mandela su fekkoon ne dafay am état d'âme <laughs> mais mais mais Mandela a réconcilié benn benn mandat la def il a réconcilié les les Sud-Africains euh, leur équipe de rugby nga xam ne ñoom ñoo fi gënoon a raciste nekk fay ay affaire musul mayo bi dem toog kenn musu ko gis c'est ça des actes de sublimation c'est ça qui est extrêmement important léegi moom lañu ñu soxla fii parce que Macky Sall du Sénégal moo ko soxla Afrique moo ko soxla il faut que mu bàyyi xale yi ñu génn mu bàyyi Sonko indi benn ngan di waxtaan nga xam ne dañuy waxtaan d'accord ci élection yi dem ci ay élection yu jub ay élection yu sincère ay élection yu libre ay élection yu inclusif mu génn par le haut ñun ci suñu bopp ñun ñoo koy tagg fu mu bugg nekk sur le plan international